jàkkaarloo askan wi ne li waaj wax yëpp dara amu si. Mhm. wala li mu wax kat lii ak lii ak lii la demee. Mhm. loolu la xel di nangu mais instant bi ñu nekk tey jii nii. dara xew fi dara amu fi lu jar ñuy bëgg génn loolu nit ñi naan na kii communiqué na kii gis si benn DG bu ñu dàq de. te tiens-toi bien. Mhm. si kanam tuuti dinañ dàqati dàqati dàqati dàqati ba du ñu mën a compter ñi ñu dàq léegi à chaque fois boo dàqee dañuy toog ngeen waxtaanee ki ngeen dàq. Mhm. moo tax ma ne débat boo xamante ne boo xamee tuuti administration ni muy doxee nga xam tuuti état ni muy doxee du ngeen yegg fii. Mhm. maa ngi doon expliquer exemple bi nga xamante ne moo amoon ci Omar Gueye ak ki nga xamante ne moo docteur Abdourahmane Diouf. l' actuel ministre de l' enseignement supérieur. moom euh, jamono yi nga xamante ne moo nekkoon SONES ki nga xamante ne moo di Omar Gueye moo nekkoon euh, ministre de tutelle am nekkoon ministre de l'hydraulique à l'époque aussi mm-hmm. mais ba ñu amee juyoo ñoom ñaar ba ñu dàq ko fa mais après dafa dafa mën nañu sax bokk na sax si li taxoon Abdourahmane Diouf daal di jël ay distance am ci réew mi ba dem ber ber ber yoonam ber yoonu boppam donc politique noonu la demee dafa ànd ak ay mariage ak ay divorce kooku comme comme comme comme la vie quotidienne la dafa am ay mariage am ay divorce mhm. mais boo bëggee divorce bu ci am nga taxaw ci pénc mi ne lii moo tax mu dem nii ak lii bu subaa beneen amaat nga demaat taxaw su boobaa doo liggéey. Mhm. moo tax man dama gëm ne c'est un am na am na am na am na jafe-jafe yu gars yu bëri am. waaw pour waaw tey jii mhm. moom mi nga xamante ne député askan wi la mu taxaw mhm. ne état bi lan ngeen euh, prévoir li nga xamante ne moo di Touba màggal gi war a ñëw ku ne xam ne euh, Touba ni muy inondé ak ndox mi ni mu leen di sonalee mhm. ak moyen d'un ñu amal màggal gi pour man am na ay question yu gën a am solo yoo xamante moo di député et ce qui est mooy ñu bëri dañuy wax naan moment bi nga xamante ne euh, doomu askan wala moment bi nga xamante ne sénégalais ñi ngi doon ñàkk seen bakkan ci manifestation ak li ni mel euh, ba tax ñoo xamante ne tamit ñàkk na ci seen liggéey moment boobu ñoom ñi nga xamante ne ñoo di député également euh, fan lañ nekkoon te boobu lañ leen waroon a gën a soxla yaakaar naa. waaw mais xam nga loolu loolu loolu loolu mooy wane rek ñàkk taxawaay bi nga xamante ne. finalement da nga naan est-ce que ñii sax mais loolu la ñuy wax ñu bëri <laughs> mais loolu lañ loolu la ñuy wax amee parce que mm-hmm. su fekkente ne yow da nga nekk ci penc mi lépp lu concerne penc mi sa yow nekku si mm-hmm. yow loo loo daan wax moo tax ma ne fi ñu toll nii bu ñu demoon assemblée nationale xam naa dinañ de parce que ñu si bëri dañ ne loo xam ne député Macky Sall la Macky Sall. lu mu bëgg ma defal te Macky jóge na fii. imagine la nga ne projet de loi bu ñëw du ma du ma sax xool. waaw waaw waaw ñi doon wax loolu voilà <laughs> non mais c'est c'est extraordinaire léegi nag lu ñuy wax léegi dañuy toog ne léegi projet de loi bu ñëw damay voté les yeux fermés. ah par exemple dañuy gëmm voté dañ doon gëmm voté. dañ doon gëmm voté. Mhm. léegi nag exécutif bi changé na chef. Mhm. ndax da ngeen di def léegi bu ñëwee ngeen gëm a voté je ne pense pas parce que du du du esprit boobu lañ leen moo leen animé parce que dañu jàpp na ñoom ay député lañ yoo xamante ne euh, président Macky Sall moo leen fa teg dañu am benn loyauté boo xam ne dañ ko war am jëmale ko ci moom ba tax na lépp loo xam ne concerné na ko lépp lu jëm ci moom lépp lu jëm jóge pale ñëw dañ koy voter les yeux fermés. Mhm. foofu nag la problème bi nekk foofu la jafe-jafe bi nekk moo tax ma bokk ci ñi am yaakaar ne assemblée bi moom euh, président Diomaye am na bel et bien raison pour ko bu baax a baax. am na ñoo xam ne de fi mu ne nii seen bakkan lañ ci teg pour ñu bañ koo tas ndax da lay leer ne. bu ñu ko mhm. desee moom chômage lañ jëm. ndax am ñoo xam ne ñoom àdduna yi politique lañ ko def amuñu métier amuñu dara politique rek te ñi nga xam ne dañ fa dugg par. chance wala par accident. Mhm. ñoo xamante ne amaan na sax règlement intérieur assemblée yu ci bëri sax la jëntewuñ ko ñoom daal nañ ñëw toog tey jii par exemple ñu teg dañ ko fa kenn dañ ko faa teg pour tey Moustapha lay ciblé bu Moustapha waree wax defal le tout rubé ko ba Moustapha di réussir mission wala dinaa def le tout tey jii même bu fekkente ne projet de loi bi nekk na lu amal njëriñ askan wi du ma ko voté rien que pour yàqal keneen donc am na façon type de député boo xamante ne moom la askan wi soxla pour man que ni député yoo xamante ne lu neex ka leen fa teg rek la ñuy lijjanti. waaw pour pour man dafa dafa dafa am loo xamante ne sax man dama jàpp na war nañ fa mën a yegg. Mhm. mooy euh, dem ba nga xamante ne am am ci ay réformes parce que am na ñoo xam ne dañoo bëgg jël seen àddina yëpp. def ko ci député bi def ko ci député bi. xam nga Emmanuel Macron bi muy ñëw bi muy doog ñëw dafa bëggoon réformer li nga xamante ne euh, indi ay réformes yu bees. Mhm. bu mu nee yu bees yi bokkoon na ci mu ne élus dootuñu amatul ëpp pour man damay gis ne fii ñu bëri dañuy fàtte genre bëgg-bëgg boobu wala genre mm-hmm. euh, nu ñu koy waxatee sax initiative boobu indi ko ci réew mi. Mm-hmm. parce que pour man il est question nag nga gis ñoo xamante ne dañuy judd nga fekk la ñu nekk député ngay magg ñi nekk député ngay màgget ñi nekk député boo moytu nga dem retraité ñi nekk député. wala boo demee fekk fa assemblée fekk fa ñoo xamante ne say maam lañ. say maam lañu ñoo xamante ne yow ba yow ba nga ba ngay ba ñëw assemblée nekk ndox ñoom député. ñoom danga nga daan toog di leen seetaan ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi dem plénière. juddoo nga ñëw. <laughs> xam na ne nga ñëw. yow léegi nga dem ba war a ñëw ah. ñëw dara desul lu may euh, nekk nekk nekk député nga ñëw fekkaat leen foofu. Mhm. ñoom tamit ñu ñëw nekkaat député. ñu ñëw nekkaat député. wala léegi ñooñu seen àddina député lañ ko nar a defee. seen kër yi rek député lañ nar a doon léegi loolu moo tax ma ne réforme boobu nga xamante ne moom la moom la moom moom la junjoon je pense que dafay baax na ñu indi ko ci dëkk bi. Mhm. par exemple ñu ne léegi kenn képp koo xamante ne amatoo am droit am trois mandats yu consécutif mhm. ci ci ci ci ci ci ci assemblée nationale. Mhm. maanaam boo nekkee député. nekkaat député nekkaat député doy na. doo mën a nekkaat doo mën a nekkaat député xanaa nag. Euh, ñu dem ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu changé mbir yi. Mm-hmm. après diggante bi benn législature dox ci après nga ñëwaat nag su ko defee su boobaa mën ngaa nekkaat euh, député. Euh, pour enchaîner waa trois li nga xam ne mooy trois législature je pense que mm-hmm. yooyu ay réforme la xamante ne ñu ngi espérer ne mën na mën na mën na doon ay changement yoo xamante ne mën nañ ko am euh, mu bokk ci li nga xamante ne. Mm-hmm. ñu ngi koy xaar parce que façon bi nga xamante ne moom ñuy falee député yi ça pose problème. tamit façon boobu a réglé waat Moustapha. non war je pense que actuellement nii nii nii du yaakaar mu yomb parce que boo bëggee dugg ci ay réformes bëgg dem ci ay élections anticipées déjà parrainage bi rek ça pose problème. délai bi nga xam ne moom la am pour parrainage bi. Mm-hmm. boo ci bëggee def bëgg demaat élection boo moytu fi ñu toll euh, gàtt gàtt. trois yi nga doon wax dootu ci xajati. wala nga dugg ci deux dugg ci deux dugg ci boo moytuwul. Mm-hmm. Euh, nga bañoon ko wala nga kiw mais euh, fa nga fa fa nga jëm parce que li ko waral mooy procédure yi nga xamante ne moom lay laaj mais je pense que loolu lépp rek nañ ko waxtaanee def ay mm-hmm. ko mu ko soppi parce que parfois nga dajee ak ay député yoo xamante fële ca pencum ndaw réew mi wallaahi boo kii mooy représenté peuple bi sa bi day jeex tàkk ndax jafe-jafe yi nga xam ne sax mooy jafe-jafe ñi nga euh, xam ne ñoo ñuy suivre également di euh, euh, waxtaan bi nga xamante ne ñu ngi leen koy amal seen émission le soir di leen jëfalaat bu baax a baax aku ci mel ni Ataña Serigne euh, Saliwoon Fall a Cissé Assane As modu Diouf mu ngi lay ziar bu baax Serigne Ndiaye euh, ñu ngi lay nuyu bu baax a baax Ibrahima Kebe Modou Diouf voilà Mamadou euh, taal daabo Adjiji Si Fatou Tunkara ma sœur Binta Sarr bu euh, Déthié Fall jaajëfal nañ leen bu baax a baax di leen wax rek ngeen continuer aimer live bi ngir ñi nga xam te ne itam jotaguñ ñu mën a jot seen notification dañuy wéyali rek waxtaan bi ba tey continuer ko ci actualité lay doon ba tey Jéegi Diop moom mi nga xam ne sax amoon na démb passation de euh, service am euh, ginnaaw ba ñu ko daal di convoqué fële nga xamante ne moo di ca brigade recherche bu euh, Kër Massar gis nga kàddu yi nga xamante ne sax wala de presse bi mu doon amal tey jii di wax ne daal dañ ko daal di te gouvernement bu bees bi sax dafa daal ñëw ngir xoqatal leen wala sax di acharné wu ci seen kaw te sax li nga xamante ne moo di passation de service boobu mu doon amal ba mu koy def ci kanamu avocat am benn yoon ñu koy xoqatal la mu war a def yépp euh, dina ko def est-ce que Moustapha yaakaar naa ne euh, passation de service jaar na dem yóbbaale sa li nga xamante ne moo di avocat kon cas bi mujjee naa toll foofu. waaw mais bu fa cas tolloo moom moo ko fa yóbbu ah, ah moo ko yóbbu parce que am na ay moromam yoo xamante ne ñëpp euh, banañ ñenn ñi ñoo bàyyi ñenn ñi boo jëlee ku mel ni moom kaawam bi bi nga koy comparé la xam nga moom dafa démissionné la wax mais bu démissionné Maodo Malick Mbaye bu Thiès moom tamit dafa démissionné. Ah, waaw Maodo dafa démissionné bu Anamoo exactement bu Anamoo dafa mm-hmm. démissionné. Mm-hmm. mais est dégg nga coow li nga xam ne jéggi moom la am coow li mu am nii nu amu ko parce que pour man lépp grandeur la. ak mm-hmm. tolluwaay. imagine toi ñi ñi nga xamante ne dañ leen a jëlee seen ay postes dañ leen a remplacer ñoom ñëpp est-ce que dégg nga si kenn ku si am coowal passation de. de service. te ñoom am ay postes de responsabilité sax yu gën a mag. yu ko gën a mag am na fi am na fi direction yu ko gën a mag. a mag RTS bi Racine Talla Racine ak euh, direction bi ñu dénk Jéggi Diop mën nga comparer ñaari mënoo ko comparer. moo ko ci àddina Pape Demba Biteye ak Jéggi Diop da nga koy comparer. doo ko comparer. Mhm. mais est-ce que déggoon nga foofu ñu fay wax ay non du def lii ak damay bàyyeek bu ñuy doon am ku ñu xoxatal. dinañ ci xoxatal ñëpp di dinañ dinañ bàyyi ñële di xoxatal dem. di leen xoxatal wala ñu xoxatal koo xam te ne peut-être am na poids mën na leen a sonal dans l'avenir au moins. waaw mais loolu mooy wax ci mais su fekkente ne euh, ce passage politique ñëpp xam nañ ne tey ji euh, ni mu jaaree ba yegsi la euh, pratiquement ñu bëri gis na kii kat vraiment dafa jéggi fële transhumant bu ñëw la wala yu ni mel ak yooyu mm-hmm. noonu amoo benn taxawaay bi nga ñëw nekk xarit kenn. Mhm. ci koo xamante ni tamit euh, taxawaayam amoon na loolu ci ci ci régime bi ñu propulser la nga utiliser médias yi am ci taxawaay boo xamante ne di defendre président bi moment boo xam xamante ñu bëri dañ doon daw ñu ko défendre président bi gis sa jox la ay poste de responsabilité. Mhm. ban menace nga mën a nga war a mën a doon ci ñi nga xamante ne tey jii ñoo yor réew mi man gisuma ko. Mhm. donc menace amu fa nga dem conférence de presse taxaw wax.